People, 9h passé de 27 minutes, toujours dans la deuxième partie de The Morning King. Binto, ma sister, ma lover. Bien ça. Alors, tout se passe bien Waouh, ça va, on gère. On va aller découvrir quelque, chose. <laughs> Découverte dans la matinale. À 9h27 minutes, vous êtes toujours dans la deuxième partie de The Morning King de la Noir Nanek euh, Bintou Moitié Andak euh, Gela. Euh, tay ci lundi bi di wax ne ne côté découverte tay, on va aller vers des tontines tontines yo, xam ne nekk Nat, natt xam nga dafa am Sénégal. wuyul ki lay woo. d'accord allô bonjour allô. allô oui bonjour. King FM. King FM. King.

tontino wala microcrédit yoo xam ne nekk euh, féminin la yoo xam ne nekk jigéen yi ñoo koy faral di organiser mhm. moo lay permettre après ngay am recette c'est-à-dire que nii suñ jigéen yi dajaloowee dañuy déterminer benn somme boo xam ne nekk dañ koy déposer mhm. kenn ci ñoom daal di ko yor mhm. léegi euh, su fin du mois wee wala ci benn jour boo xam ne nekk ñoom euh, tànn nañ ko rek dañuy toog daal di def benn tirage à l'aveugle boo xam ne nekk ki nga xam ne nekk mooy turam génn na ci génnee daal di koy euh, jox xaalis bi nga xam ne ne ko moom la moom la ñu dajale mais dañu seetla ne ko par rapport à cela dafa bëri ay problème yu ci am parce que des fois nga dénk nit xaalis mu jël ko lébalé ko wala mu disparaître wala mu am euh, lo xam ne ne daf ko ci bëgg mu jël ko ci xaalis bi manqué donc euh, par rapport à cela mu am ay site yo xam ne ne dañu spécialisé wu l'égui carrément ci filière bobu merci chef, fay côté image mm-hmm. voilà légui dañuy euh, spécialisé wu carrément ci filière bobu, manam tontine en ligne jigéen ni bu ñu duñu déposer xaalis dañuy tok pour euh, juste xamante saafonte décider par rapport à leur projet at lan lañu bëgg def à l'avenir mais tontine bi euh, xaalis bi ñu koy déposer ci site en ligne bi site en ligne bi dafa créer une plateforme bo xamné am liste de familles des am groupement yi fay am sexe yi fay am euh, activité bi femme yépp xaalis bi fofu lañ koy déposer moi li ci intéressant moy que bu féké né tontine simple la dajaloo jël xaalis xam nga ku teggi rek mooy yor mais en ligne dañu appliquer un système que gain après en retour mhm. maanaam ñëppay gagné kenn du perte mhm. comme par exemple site que site en ligne la moom ci ça permet aux femmes aussi ñuy euh, impliquer wu technologie de l'information et de la communication information par rapport à cela da ngay am téléphone di nga am euh, ki bi di nga am site bi di nga am application bi donc du coup les femmes vont plus être modernisées dinañ leen permettre ñuy mën lire di mën appliquer di mën jang li nga xamné ne ne que mooy nouvelle technologie am ben approche si li nga xamné ne ne que denc xaalis si bir numérique ci biir euh, li nga xam ne ne que mooy digital mais pas si biir benn kër wala benn nit mu ah. nekk innovation boo xam ne ne que mi ngi commencé di jël empleur ndànk-ndànk siti fii si Sénégal ku dem Google rek di nga ci gis euh, site yu bëri bëri bëri yoo xam ne ne que ñu ngi créé wu ndànk-ndànk di nga mën a bokk si euh, natt bi nga bëgg pour xool activité bi la arrangé après incha allah rek di nga ci am gain te di nga ci am satisfaction. mais Bintu. internet en fait euh, la euh, page euh, plateforme bi mhm. internet bi. Mhm. c'est comme une banque c'est la même chose mais xam banque tu te déplaces nga dem mhm. banque euh, je peux dire que c'est matériel mhm. bi c'est abstrait mhm. mais il y a des gens qui sont derrière ils gèrent les loo qui ne nekk moi côté de bi côté euh, recette bi côté versement yi et tout te à chaque fois dina am ay traces dina am li nga tamit moy reçu par rapport ak versement y retrait yi et tout ça donc c'est assez formalisé c'est assez euh, concret doo d'une duñ dem duñu daw duñ def dara ah, sa xaalis mi ngi en sécurité man de ça me fait peur en tout cas parce les que les tontines en ligne déjà les tontines en, tant que telles il euh, y a toujours des problèmes mhm. euh, ñu wax ci légui ñu daal indi ay tontines en ligne parce que xam nga jigéen cette ah, nga mhm. euh, tabaski wala corité dañuy def ay tontine en ligne mais lolu c'est juste ay Facebook wala mhm. ay euh, réseaux sociaux yo xam da ngeen ni dajalo mhm. mais li c'est des euh, plateformes yo xam que c'est spécial pour ça lolu moy un ligue heureusement Bintou, on a constaté par rapport aux tontines que les femmes maintenant ne s'arrêtent plus sur, sur, euh, sur euh, l'aspect les, de l'argent, mais il y a des cheveux naturels, voilà. des greffages, des matériels, des mhm. télévisions, des meubles, des tissus. Mm on peut dire qu'il y a, y, a, y, y a, plusieurs, y a plusieurs façons. Ça voilà, une façon, on l'appelle troc, comme autant, temps, yag, yag, nit et nit c'est-à-dire que je te donne du riz tu me donnes du miel échange, voilà échange les dons mhm. c'est la même chose pour ces femmes là tu donnes de l'argent mhm. les après un retour nga bu fekkee que tontine bi am euh, cheveux am nañ yére am et tout ça mhm. nga ne par rapport à li ma versé bëgg voilà bëgg naa lii bëgg naa lii mhm. c'est c'est vraiment intéressant on a parlé euh, de tontine les, les les sites de tontine qui qui qui font le buzz en ce moment mhm. c'était la découverte de ce jour merci à toi Bintou des réactions sur la page Facebook <laughs> on a Binet Goudiabi qui nous dit euh, tontine bagouma alors Bintou découverte tontine moderne nga ñu comme moi j'ai pas confiance voilà ça dépend hein. ça dépend tout simplement des personnes si vous avez confiance n'hésitez surtout pas à aller participer aux tontines sur les sites mais quant à nous moi personnellement beaucoup. boko <laughs> <laughs>